bismillaahi rahmaani rahiim wa sallallaahu taala ala sayyidina wa mawlaana muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wa xadiimihi wa sallama tasliiman safaru bamsasin junnatun jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci leeral TV leeral point net ñoo ngi leen di gërëm bu baax a baax ànd bi ngeen ànd ak ñun seen émission safar gi mbokk yi seen émission safar gi tey ñu ngi fii ci caaro yi fii ci caaro yi fi nga xam si ni moom mooy euh, bis bi nga xam ne moom mooy dem mooy dem Touba bisu euh, bi nga xam si ni mooy dem Touba ñu ngi fii ci arrêt bis bi ñu ngi fii ci euh, koñ bi nga xam si ni moom mooy sam 1 ñu ngi sam 1 ci en face jumaa ji ñu fekk suñu benn mbokk taalibe muy la Diop ku wax Lat Diop wax euh, ko ci làmb waaye ku wax Lat Diop wax ko ci yoonu mu murit muy xale boo xam ci ni ndaanaan la di xale boo xam ci ni dañ ñiy liggéey ñun ak moom tey bu wootee ci nañ leen ko santalee euh, Serigne Bamba nañu def bernde ci bis bu mel nii bu Lat Diop wootee dañuy bàyyi yitte yëpp waaye tamit dañuy bàyyi euh, sunu lépp loo xam si ni am nañu ko waaye ci lépp loo xam si ni nekkoon nañ ko si dañu ciy bàyyi ak moom ñu ànd ci ak moom ci bisam bi nga xam ne moom mooy sant Serigne Bamba waaye tamit sant yàlla sunu borom waaye tamit di jël ay xéewal di ko jox ay mbokki doomu aadama mbokk yi dañuy ànd ak laay naxataal taalibi Serigne Bamba bi laa àndal tey dañuy dugg ci biir ñu dem xool fee Ah, li fa xam ne moo fa am waaye tamit xool fa yenn kilifa yi nga xam ne ay autorité lañ ñëw ci bisu Lat Diop bi waaye tamit ñëw ci bisu waa Samsam 3 Lat Diop ànd koo ki magam ànd koo ki rakkam ànd koo xaritam nañ dugg ci biir laay let's go. ci man waaye ki xewle dafa am kenn la ci man waaye tamit dañoo fee fekk kenn koo xam ne si nii gis nañu la muy liggéey si Sam-Sam waaye gis nañ na mu taxawee euh, euh, njabootam waaye tamit gis nañu na muy dimbalee jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii sam commune 3 rawatina commune jàmmagan Diamaguène Sicap Mbao Mohamed la kooku mooy sunu délégué kooku mooy sunu lépp kookoy sunu papa kooku mooy sunu xarit laay damay seere ci moom waxtaan ak moom tey dama ko fekk ci bis bu rëy fekk ci bis màgg Mohamed maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay Serigne Fallou bu baax a baax di la ndokkeel di nuyu waa Leral TV yëpp di nuyu waa Samsam yëpp incha allah. en tant que délégué nga ñëw ci bis bi nga xam ne si nga bokk sax. bis bi nga ñëw. waaw si bis bi laa ñëw bisu safar bi bi nga xam ne eh, Seex Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul moo santaane woon na ñu santale ko borom bi ba taalibe yi bu safar bi jotee kenn dootul am jàmm di togg ay xéewal di ko séddale lu am solo la léegi rek même ñëw ñu délégué bi ñëw na waaye ñëw na leneen leneen lu ñëw Euh, ñi ko organisé dañoo nekk samay rak ñi nekk samay jarbaat ñu am kóolute si man nag ñëw yabal ma si madame Fall nga xam ne jamono yi moom moo yëngal jàmmagan si Kambaaw. kon madame Fall nga àndal nii. Fall laa teewal kii yëngal jamono kii jamono. ki nga xam ne moo ngi dimbali nit ñi tëdd si boole wax. mi ngi dimbale jigéen ñi dimbale ndaw ñi tëdd si. xam nga lu ma métti si madame faal dafa yéex a génn yéex a génn gi mu yéex a génn rek madame Fall dafa waroon a génn bu yàgg ndax gis nañu social bi muy def ci ndaw ñi gis nañu social bi muy def ci jigéen ñi rawatina jigéen ñi ndimbal bi muy def ci jigéen ñi. xam nga euh, mango bi lay noppal. Hmm. mooy bi wadd rek rot nga jël raxas lekk. mooy lu ñoo tàbbi kenn du ko hmm, gësam kenn du ko gësam day soog a jot. Hmm. moo tax bu ñëwee rek day am njëriñ tey bu fekkoon dafa ñëw fekk xaay ñu koy rënk. duñ ko jox valeur am. bi mu ñoree rek la tàbbisi moo tax vraiment ñu koy ñaanal yàlla. léegi nag bi xale yi ñëwee sama kër euh, wax ma xew-xew bi fekk nag yàlla dogal mu génn ma ne nag dinaa ko fi teewal. li ma fi ñëwee nag xeeb na ko lool ndax lu mel nii ku la ko yéene rek euh, yiw la la yéene. Mm-hmm. yiw mm-hmm. ku la woo si safar si yiw la la woo. Mm-hmm. loolu moo tax nag ñu jóg tey suñu personne ndax xale yi waaye tamit ki nga xam ne moom lañ jëmbal muy madame Fall ki madame Fall di jëmbal nag xam nga ko ñun ñëpp xam nañ ko. muy commando fen Fall. le premier la commune de Diamaguène Sicap. maanaam mooy wurey bi. wallaahi wax nañ ko. ah da ngay bañ ceeb bi cooke. waaw lool laa moo tax nga koy jekk. waaw moo tax ma koy jekk nii. waañ wi. waaw waañ bi ñun ñoo fi nekk nii si bis bi sunu bis bi nga xam ne ñun amuñu lu dul moom bisu sam-sam la ñun sax dañ ciy bañ bisu murid yeeg tiijaan wala xaadir ndax bis bi sam-sam gépp la bis bi daanaka tiijaan ak xaadir yeeg ñaseen yeeg njaago yi sax liñ ciy def ñun murid yi defuñu ko si darki allah ji fan ndax ñun lu ñu bon bon ñun dañuy xëy di liggéey ji mais sunu benn waay bu ñuy wax seex Makhtar nga xam ne xaadir la taal taalibe Cheikh Makhtar Diop lim ciy def ñun defuñu ko ci waaw euh, bis bi moom kin koy defal mooy ki tooñ dimbal wëri jaari daw mi fii di nu seexal bamba doomi jaara ja kan nga ma limal bamba lépp fu mu jaar ah ahmadou de fi mu jaar bari na fii lan ko jëlee 1902 jaarale ko ndar sëriñ bi jugee ndar jaar ndakaaru jaar jeewal ñibbi si dem ñu yóbbu ko gànnaar xam nga ni gànnaar ku nekk xam na ko ban ko fay yóbbu dañ ni woon dañ koy sànk ji ndeke tisbaari jeewal ja moo waral ñun màggalu Tuubaa gii ñuy màggal Serigne Bamba dem ñëw ñu indil ko am bëy mu ni déet nan jël bëy bi dem wecceeku ko am xaaf ñu jël bëy bi wecceeku ko xaaf mu ne nan si sant dafay bëgg ñu ko siy sant la yàlla sant yàlla am googu nag comme ñun murid lañ sant yàlla gi du yam ci bisub safar ñu ne nag weer wi yëpp le premier premier safar ba 18 safar lépp dañ koy sant yàlla sëñ Bamba bu ko neexoon day dem 10 jours ba mu ñibbisee am ndam lay feete ndeke sëñ Bamba demul woon ñu koy tëj ndeke sëñ Bamba moom bi muy dem da doon wuti ji kon nag booy dem guerre ba am ndam doo feete bisul am ndam bi bis bi ngay dem guerre ngay feete. jërëjëf. comme noonu la fa demee ñu ngi sant yàlla bu baax ti bis bi ak yokkute rek lañ ci gis wax dëgg yàlla nag. jërëjëf ok. jërëjëf. yaa ànd ak say doom tey fii si waañ bi. waaw tey damaa ànd ak xale yi ci waañ wi ci safaru sëñ Bamba gi. niñ ko commencé ci bisimilahi rahmaani rahim yàlla nañ ko àggalee rek ci alhamdulilahi alamin yàlla mottali lépp ñu dund ba dem Touba ci jàmm wax dëgg yàlla lépp rafet na macha allah. jërëjëf lépp rafet na jawriñ kilifa maa ngi lay siyaare Baye Fall maa ngi lay delloo ñu ngi sant ba mu laal naka ngeen dundee mbégte mi tey mbég rek parce que Serigne Bamba mu tànk ginnaaw waaw man Tidiane la taaliba sëriñ Babacar Sy la nga ne taaliba Serigne Babacar Sy la mais man dama bëgg njabootu Seydi maam borom Touba. taalibe sëriñ Babacar si Malick la. taalibe Serigne Babacar si Malick la doomu El Hadj Malick Moussa Gaayal man dama bëgg maam El Hadj Malick te maam El Hadj Malick ak maam Ousmane ñoom ñaar moom borom maam borom Touba ñoom bokk benn maam ñu ñu ñëw boole loolu ñu nekk ay ndaw nag suñu yaay yi ak suñuy bàjjan jiitañu ñu topp seen ginnaaw ñoom ñoo ko njëkk ñu topp seen ginnaaw Lat Diop mii nii fii la toog barki Seydina laa la wax bu ñuy def loolu bu ñuy def safar bi laaj joom moo ñëw fekk ñu toog mun ñu monté tey de bisu safar la si café ak beñe lañ commencé woon borom tey may ñu li ba tey ji ñu ngi rey nag te pourtant boo xoolee suñu poos ñu ñii la jóge ñu ñi mais lépp ak jëmm ji jëmm ji moo waral lépp kon ñun amuñu fayam mais nag ñu ngi koy bàyyi ak suñu borom borom Touba mu fayal ñu ko. mu yokk ba yëg ko yokk ko heure bii demee yàlla na ko suñu borom def milliardaire ba si yow mii sax taxaw di ma introsé jaajëf maam. jërëjëf Lat Diop bu nekkee milliardaire ñun dinañ doon milliardaire parce que suñu deret la eh, eh, eh, yaay laay nag kii mooy njaago Serigne Fallou xam nga Serigne Fallou dafa bëgg dafa bëri njaago ay ñoom Laurent keneen ak waaye dama see gis sama yaay joo xam ne njaago Serigne Fallou njaago Serigne Fallou maa ngi lay nuyu. sama doom maa ngi lay fay maa ngi lay siyaare xale yi nag dañoo commencé woon ci beñe café ñu ñëw ba ci ay ginaar. tey ñu ñëw ba ci naag loolu lañ lay wax ne sëñ Touba amul tànki ginnaaw tànki kanam la am lii ñu commencé nag danañ dem ba ci gileem ak ay nag yi nag ñi leen di ñaana nag lii ñu commencé yàlla na ci borom Touba def jàmm jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom. mais yaay yaay lu la booleeg Serigne Fallou bañ na la njaago sëñ Fallou. ma njaago xëy na yàlla moo ma tudd ma sëy ak ñoom. ma jëloon sama borom kër nag indi ko ci sama wet indi ko ci sama diine man taalibe sëñ Fallou laa bañ naa ko ba fu may jaayee bëgg Fallou lañ may wooyee. Hmm. waaw jërëjëfee borom Touba. jërëjëf waaw. mbégte safar gi ak tey jii jàmbaar yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci euh, koñ bépp ñëpp génn nañ jàpp ci li nga xam si moom mooy bisu Serigne bàmba bi ñu santale ko yàlla sunu borom tey teewaayu monsieur le maire euh, Mouhamed Gningue. waaw di ci kontaan rek comme euh, li wax. di sant Serigne Touba gu wér a wér a wér di wax ne tey ku gis lii maanaam murid yi ñu ngi fi tijaan yi ñu ngi fi xaadar yi ñu ngi fi ñëpp a fi maanaam koñ bi ñoo jóg di def li nga xamante ni moom la Serigne Touba santaane ci bisam bi di ci kontaan bu baax nag di kontaan ci Mouhamed ni mi nga xamante ni moom mosuñu bàyyi ginnaaw benn yoon sépp buñ ko soxla lu mu guddi ak lu mu bëccëg rek dina ñëw teewal ñu di ko ñaanal yàlla di ko ñaanal gudd fan ak wér gu di gën a kontaan bu baax di gën a kontaan sama copain bee tamit mbay Ndaw ñoom Baye Mor sama grand yi nga xamante ni ñoom ñëpp ñu ngi fi teew ma bàyyi leen ak kàddu yi. jërëjëf waaw jërëjëf. jërëjëf kàddu yi am na solo balaa maa jëm ci Baye Mor ci mbay Ndaw maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Saliou. bis bi tey. bis bi waaw bis bi. dafa mën na ñoo wax ci bisu ne waaye bis bi foog ñëpp song ko parce que mooy bis bi nga xam ci ni moom mooy bisu Serigne Bamba ñu war ko santale yàlla sunu borom def ay benn tey ñu gis fi ne rey ngeen nag rey def ngeen i ginaar lu ne am na fi. Euh, bis bi tey dañuy santale yàlla Serigne Touba di di sant tamit ñi nga xam ne ñoo fi nekk te nekk suñuy kilifa ci dëkk bi ndax lii lépp ñoom la parce que bu fekkee dem nañ ba benn ka benn dëkk def benn safar parce que da ngay gis safar fii safar fii safar fii. mais ci organisation ak ci waxtaan ak ci nekk benn la ñu defaree safar bii suñuy rakk nag ñoom ñoo ko déparé suñuy rakk ñoom ñoo ko déparé ñun dañ leen accompagner ci ci ci xam-xam accompagner leen ci moyen accompagner leen ci ñi ñu xam ku ci mel ni Mouhamed mii nekk euh, suñu mag nekk suñu kilifa ba pare nekk koo xam ne nii ñun ay élément am lañ fu ñu ñu loo comme ni nga ko waxee fa lañ jëm lu mu ñu def loo dañ koy def sans hésiter. parce que nekk na koo xam ne mosuñu tànqam la ci politique mosuñu tànqam lu or politique kon du ñu def lu loolu sant ko di ko gërëm euh, di sant tamit suñuy rakk suñuy mag suñuy suñuy suñuy jigéen ak ñi nga xam ne ñoom ñooy suñuy kilifa euh, sant la nañ yàlla si Serigne Touba sant la nañ ko yàlla bu baax a baax a baax a baax euh, di sant Coumba Ndoffène Fall mi nga xam ne moom la fi Mouhamed teewal di sant madame Fall mi nga xam ne moom la fi Mouhamed teewal di leen sant bu baax a baax li tax ñu ne di ko sant nag xam nañ ko ñun ñun waa koñ bii xam nañ ko ma Ndofène Fall manqué nag commune Diamaguène Sicap Mbao mais ñun la gën a manqué parce que ci ñun or la woon ci ñun fii or la woon ci ñun parce que defal nañu lu ne manqué nañu trop mais ñu ngi koy séntu ci leneen incha allah te dinañ ko accompagner ci leneen. jërëjëf jërëjëf di sant Leral TV di kontaan ci télé bi yàlla na nekk télé yi gën a mag ci ci ci ci Sénégal yàlla nekk télé yi gën a mag ci àdduna bi. Euh, sant nañ leen gërëm nañ leen jërë ngeen jëf. Baye Mor sunu mag kii moom sunu mag la sunu grand la sunu lépp la man mii moo ma yar moo ma yar Baye maa ngi lay nuyu. sëñ Fallou ñu ngi lay siyaar bu wér. waaw. kontaan rek kontaan rek wax dëgg yàlla monsieur le maire li Mbaye Ndaw wax rek tànkam suñu dara yaakaar naa Adja Diallo mi nga wax léegi fu mu taxaw ci gox bi man mii dañ ma daan woo ma ànd ak ñoom nekk seen sécurité. kon xam naa social bi mu def ci gox bi xam naa li mu defal waa koñ bi yëpp tant kenn mais moom it mu rafetal trop ndax fu mu fu ko madam woox nag nañ fa dem rek wax dëgg yàlla ci sawar ànd ak ceeg moom ak yéene kon teewaayam dañ koy rafetlu bu baax a baax a baax a baax di ko gërëm di ko sant di ko yóbbante nuyoo ci madam ak monsieur le maire Ndofène wax dëgg yàlla li mbay na wax ñun rëccu nañu rëccu nañu liñ fi jël bi ko fi jëlee parce que bi mu demee la ñuy door a xam njariñ jëm fi am safar gi nag li nga wax rek dañu suñu rakk ko organisé ñoon Laat Jóob ak ñoon Cheikh Matar ak koñ bi yëpp wax dëgg yàlla jox ñu cër nag xeebuluñu dara biñ ko taxawalee ba nii nii suñ loxo jugu ci kon dañ cee kontaan trop di leen ñaanal yàlla yàlla nañ ko defi ay safari safari safar waaw. sëñ bi bi naka la. lamin Diop. Lamine Diop. di doom si Laat Diop. ah yow suñu doom nga. waaw seen doom laa. waaw mais fils bis bi ak ni nga def ci bis bi takk sa laxasaay doon doon Baye Fall. la fas yéene liggéey Bamba ji rek parce que liggéey Bamba ji moom soo si nekkee doo ko rëcc ndax xool nga amul tànku ginnaaw ñëpp tànk kanam rek même chose te koñ bi dafa nekk koñ boo xamante ne lu jafe si koñ yëpp moo fi am tey jii woo Murit ak Tijaan Laay ak Ñaseen ñëpp ñoo bokk lépp liggéey mag mag ñi dañuy ànd ak xam nga ñun ñëpp mun nañoo bokk même jotaay parce que mag ñi ñoo wàcce seen bopp ñun ñu ñeme leen di leen déggal nag. lu ñuy wax loolu la ñuy def lépp lu ñu munti dugg dañuy ñëw waxtaan ak ñoom ñu teg ñu si yoon waaw koñ bi nag loolu jàmm ak salaam bi quoi lañ xam kafre ku si nekk loo munti am ñu jàpp si waaw parce que ñun ñëpp benn lañ. jërëjëf jëlal ma sama tante yee toog tante Géwél. maa ngi lay nuyu na mu naal nag. maa ku ne xam na le si yoonu Serigne Bamba ni ngi ci mel. ku ne xam na ne ci yoonu murit li nga ci mel waaye ku ne xam na ne bu sëriñ Bamba wootee lépp loo amoon da koy bàyyi lépp ñëw ci bisu sëriñ Bamba ji loo denc tamit da nga koy génne ci waxande yi def ko ci sëriñ Bamba bi bis sëriñ Bamba bi. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. yow sëñ Fax yow yow mi may intervention sax kontaan ndax dañ laa tuddee Serigne Fallou sama Serigne sama xarit bisub sëñ Bamba nii rek la war a mën a defee. mu weeru safar jote xale yi yëpp toxatunu musunoo naan waa koñ bi doo dàq sàcc mukk mu dugg ci koñ bi doo dàq woy mu dugg ci koñ bi doo dàq siriyaa mu dugg ci koñ bi dunu naan dunu gees dunu tox yàmbaa yàlla yenent bi sëriñ Tuubaa Seydi Aj Maalik Si groupe bi li muy rey rey boo génnee murit yi génne tiijaar yi mu jeex waaye amul tiijaan amul murit amul xaadir amul laayeen ñëpp àndandoo di tagg sëriñ Bamba ñu di leen ñaanal ci doole xaadim rasool dara jee weeru safar bii yal na nuy mag tey mag ma amul ñam yow nag sëriñ Fallu lan la tudde la bu sa jeex réew ba ca ma réew ma kunta yaay soxna mbeen ki àggale jumaa ji miira armée di taal lamp yi mu max ko doro bi yóbbu juróom ñetti téeméer baytulaay arab ku ne mu nekk nit koo xam ne foo ko gis pusoom la yor di ñaw muy Omar di nit ku baax ne nit koo xam si nii billaay fu bët fu sa nit nit fu bëtam xonkee Omar ka fekk na fa fomp say rangooñ dimbali la jàppale la mu nekk nit koo xam si nii wax ci moom sax maanaam du bari ndax nit ñi xam nañ lu may wax Omar ka maa ngi lay nuyu. waaw sëñ Fallou maa ngi lay fay vraiment di rafetlu kàddu yi di leen dalal fii ci Sam-Sam euh, di rafetlu aussi tamit initiative bi nga xamante ne jii nii moom lañ taxawal. mu ci safar gi di ñaan yàlla nag lépp loo xamante ni def nañ ko fi muy ci ngëneel ak ci mbaax ña lañ ko yàlla nangul parce que nag wax dëgg yàlla weer bi bu teroo ñun waa Sam-Sam à chaque fois dañu def ay initiative mais dañu am benn bis boo xam bis bu spécial la dañ ko gën a jëmmal woo waa koñ bi yëpp mais nag di ci beral nuyoo di ci sant bàyyi laat mi nga xamante ne boo ko ci jëwri ñi nga xam ne ñoo taxawal li parce que lu mel ni yaakaar naa bi ñu koy taxawal ça fait mu def 10 ans ay benn euh, initiative bu ndaw la bu yàlla dogalee muy dem muy dem muy dem ba ñu bâche taxal ay nag kon loolu gëm-gëm la loolu nag dañ koy santee suñu borom di ñaan yàlla lépp loo xam ne wax dëgg yàlla def na ko ci safar gi yàlla na ko yàlla nangu wax nga lu am solo nag mooy lan tey jii nii ñun waa Sam Sam da ngaa baax rek wax ko waaye Sam Sam loolu la yàlla dogal fii nii muy man muy ñoom Baye Laat ñoom Baye Mor ñoom Mbaye Ndaw ñoom Ismaïla ak ñeneen ñi nga xam ñoom ñoo séq gox bi ñu dañoo nekk benn famille boo xamante ne képp koo xam da ngaa xewle rek da ngay simmi sa yére ñëw jàpp ci liggéey bi ba tax na lu mel nii dafa jaadu ñun ñëpp ñu daje fi euh, ñu nekk benn jëmmal jataay bi nga xamante ne wala xew bi xam moom moo fi taxaw muy safar gi te di waajal euh, wax dëgg yàlla euh, màggal sa digganteeg ndawu sam-sam sa digganteeg magi sam sa digganteeg Lat mi nga xam si ne tey ji grand bu lii amee bokk na ci ñi nga xam ne si ñoom ñoo ci dox tànku jéego ba lii am. waaw man Sam Sam fii laa juddoo Fallou Sam filaa fii laa juddoo nit mënoo am lu gën fi nga juddoo ñii samay rakk lañ fii lañ sama kanam lañ màggee damay fàttaliku ñoom seen kër euh, seen paa bi yal na ko yàlla yërëm yokk ko leer xare ko àjjana daraan wax Omar mi doom la ci kër gi ba tax na man aw ma frontière ci biir kër gi koñ tamit fii juddoo fii yaroo fii am lépp loo xam ne xam naa ko te mën naa ko te am naa ko tamit fii laa ko amee kon donc jàpp naa ne kon sam-sam mënu ma am lu gën loolu initiative bi nag soo gisee ma sawar ci di ci wax parce que dafa am ay ndaw yoo xamante ne ci sam-sam ay ndaw référence lañ parce que yow mi nga xam tey ji nii yàgg nga dox di gis dem fu ne yow xam nga ne fii nii koñu référence la xam nga ne fii xale yi nekk xale yi référence. man fii laa juddoo. fii nga juddoo ma xam ko xam naa sax fi nga xamante ne kër gii kër gii sa kër la. kon man xam naa ko waaye nag dafa am loo xamante ni moom mooy li ñu war a waxtaanee tey mooy ndaw sam ndaw sam-sam ndaw référence lañ parce que doo leen dégg ci loo xam dafay yàq doo leen ci loo xam ne du leen gis ne acam maanaam jàng liggéey jaamu yàlla nekk ci daayira yi ba pare di liggéey ci liggéey boo xam ne liggéey sociale la social bi nag moo waral képp koo xam ne feebar nga dañ lay dañ lay taxaw bu dee ordonnance ñoom ñoo koy jógandoo ku ci mel ne Dame Faly mbay Ndaw wala Baye mii wala Ahmed Wade ku ci nekk da ngay dugg si kër yi laaj loo xam ne dañ koy dajale te doo ko yëg ñu jàppalee la ko moo xam feebar la moo xam xew-xew banneex la muy ngénte wala muy euh, céet loolu tamit euh, bu loolu weesoo xew-xew yi au delà de seen poste bi ñuy jël di la ko laajal dañuy simmeeku ñëw ci xew bi la nga war a fayee traiteur wala war a fayee raxaskat wala nga a fayee liggéey euh, toggukat ñoom ñoo koy àngu jël ko liggéey ko parce que li lay war na fi ne bi e-, exemple baa ngi nii fii ñoom ñoo fi nekk ak seen i soxna pour wax la ne nag sam-sam c'est ay ndaw référence la yoo xamante ne ku leen jàppale ñu ñu ñu ñu dem parce que am nañ am nañ loo xamante ne wax dëgg yàlla lu bëgg nañ lu baax te seen taxawaay rafet na te liggéey bi ñu bëggee liggéey pour Sam-Sam ku leen si fekk si ñu def ko parce que tamit am nañ fulla fulla gu doy ni boo leen jàppalee dañuy dem boo leen jàppalewul dañuy dem parce que bëgg nañ seen gox am nañ yar fonk nañ mag ñi am jox nañ cër mag ñi am nañ yërmaande ci xale yi lépp loo xam ñu ngi def fépp fu ñu mënta doon tamit dañuy ñëw pour sam-sam te guddi guddi guddi sam-sam la jërëjëf faalu ma du ma jéeg di ko wax di amaat waat contentement bu wér ci yow amaat mbégte bu wér dangaa dëkk ci gox bi màggee ci gox bi ma nit ma dëkk ci gox bi màggee ci gox bi nga jëlaat ma taf ma sa bopp ànd boo xam ne démb la woon diggante suy waajur la ak suñuy waajur ba tey tamit ñaawul nga bëgg ma lool ba ma xam ko man man baylaat ma xam ne fàllu mi ku ma bëgg la waaw di am contentement bu wér di si waa leeral TV di nuyu daam DG bu mag bi tamit di ko ñaanal jàmm bu baax a baax di nuyu Omar Kami ma taxawal moom it suñu grand bu baax la du sonn si lu ñu nekk lu ñu nekk day taxaw jàppale ñu si lépp ci bépp côté ci xalaat ci ba pare dañuy dañuy conseil man lu ma gën a neex ci Omar dañuy conseil fàllu ñun boo ñëwee fi boo ñu xoolee nu ñu mel rek noonu la ñu war a mel parce que Omar mii nii dañuy yar ak suñuy mag yi ñoom Baye Mor ñoom Cheikh maalaw ñoom Mbay Ndaw Galas Cissé ñoonu maanaam bu bu nekkee sa ginnaaw yow boo màggee ci ñoom rek ni ñu mel rek noonu nga war a mel soo jàddee yoon rek tooñ nga moo tax ñun ku ñu gis rek dañu am noo ñu nawloo loolu nag ne si ñun fàllu ba ñu gis nawloo ñu ñii ñoo ko def si ñun muy sunu mag yi nii di nuyu safar gi ngi ma fekk nii fàllu muy nekk loo xam ne biñ koy tàmbali di ko def wallahi dañoo jënd beñe si big bi ak café Touba ci biraan mais séddale ko biñ koy defaat dañoo togg ceebu ginaar matul sax billaahi wallahi matul ñu defaat ko togg laax ndekki togg añ togg reer tey ñu ngi nii nag la ñu yeew fii wallahi te ñoo koy jaayante ñun suñu biir ñun suñu dërëm suñu ñaar dërëm la ñuy jël boole ko fàllu jaayante ko ak suñuy ñoo xam tey ñu ngi ñuy dimbali di ñu jàppale mu nekk loo xam ne tamit gëm-gëm la ak bëgg-bëgg suñu borom fekk si la si parce que bu nekkul woon lu dëggu rek day sooxee mais at bu ñëw rek day gën a saawaan di gën a baawaan di gën a yokk moo xam ne kon lu ñu nekk lu dëggu la parce que bu dëggul woon day sag buy ñëwaat day sooxe mais sag buy ñëwaat day gën a aju. Iris yoonu Serigne Touba boo ci def loo xam ne ngisal nga ko ci defee du du yàgg. bu fekkee da nga ko def ci ngir borom bis bi muy Serigne Bamba boo boo reyoon at mi ginaar bu dewee déwénee nag ngay rey waaye boo ci defee ngisal rek doo ci dem de. loolu la Serigne Touba waxoon dañuy seen maanaam yoonu Serigne Touba amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am te nee na bisam bii di eh, weeru safar dafa bëgg ñu santale ko ko moo tax mu ni 18 safar nañ ko ko santale xarajtu yow ma sabqi aminal safar li xidmatil muxtaari fi sahri safar nañ ko santale bis bi nee na ñaara ngi nii di ànd kenn ki fonk bis bi di ko màggal di ko di ko di ko ko santal bu déwénee keneen ki ki ko doon santal di ko Lat Diop ñëwaatal loolu si lan moo waral safar mu ni xarajtu yow ma sabqi aminal safar bi xidmatil muxtaari fi sahri safar maanaam yoon la boo xam ne dafa nekkoon ci yoonam moom tubaab bi yóbbu ko fu ne mu jaayanteeg tubaab bi jànkonte ak nattu moo tax ñun buñ toogee fii muy tàng wala muy taw waruñoo onk waruñoo def dara ndax sëñ bi tubaab yi jëlee nañ ko jiir boo xam ne yóbbu ko fu ne demal nañ moom Gabon yóbbu ko fu ne pour rek foqatal ko mais mu ànd ak way mu ànd ak nga xam ne mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba tey suñu borom may ko lii mu ko may mu ñibbisi njaareem ñibbisi bawal ne man toog naa pour santale Serigne Touba li li ma yàlla defal ma sante ko yàlla suñu borom moo tax ku ma fekk ci si sant boobu noonu rek suñu borom moo lay fayal boppam yàlla nañu suñu borom boole ci fay boobu noonu mu ñuy fayal boppam fàll mu nekk loo xam ne lu dëggu la ñu bëgg ko lool waaw ndax boo xoolee fii nii wallaahi mën naa ne tijaani sax ñoo fi ëpp. loolu wallaahi am na ay chrétien am ba pare tamit di di lancé benn message Zo Bamba Zo Njaago la ñu naan ko Zo Bamba dañ ko jàpp ci li amoon fan yéene ci manifestation yi di ko ñaanal suñu borom génne ko foofu mu nekk mais ku amoon Pastef la ci bis bi fàllu ci bis bi li daan am ci bis bi la doon bokk. wallaahi ci la doon bokk di ko jaayanteeg ñun te Njaago la Zo Bamba lañ koy wax. billaay bëgg sëriñ Tuubaa lool di ko ñaanal ci weeru safar gi mu nekk suñu borom génne ko ci xat-xat yooyu mu nekk ñu ngi ko koy ñaanal bu baax a baax Zo Bamba di la di kontaan dama si maanaam damaa bëgg ba amul lu ma war a waaye laaj yow ñoo fa waaw di santaat ñëpp rek maa ngi yow toog leeral Fallou di santaat ñëpp di sant nagataa bu baax nag di sant nagataa bu baax bar maanaam maanaam maanaam kii li mu wax dafa am solo maanaam ci chrétien bi muy wax sam-sam euh, dafa nekk benn euh, secteur bu am particularité gis nga boo fi ñëwee te xamoo fi da nga naan fii est-ce que am na tijaan est-ce que am na murit est-ce que am na gomis bii tey jii nii lépp loo dafay xew ci wàllum diine doo xam ne ndax chrétien la noonu la amee ci tijaan yi noonu la amee ci laayeen yi noonu la amee ci xaadir yi mbay ndaw mee ne la mais boo xam da nga naan murit la parce que jaxasoo bi ñuy jaxasoo fii nii amuñu problème boobu noonu li ko waral nag mooy suñuy grand frère ñoo ñooñu yar ci loolu ñun tamit ñu màgg ñu yar ko ci ñii xam nga tey jii nii ñun dañuy lott di wax ci sëñ Touba parce que suñu xam-xam bari wu ci waaye gis nañ ci suñuy mag di ci def ay ay defin yoo xamante ne ñun mënuñoo def lu dul loolu parce que mbaax ak xéewal ak ndam ak ak ak sutura ñëpp ko bëgg kon nag lii nii nii nii képp ku ci def rek sa bopp nga ko defal safar gii nii lépp lu ci waaye def rek sa bopp defaloo ko kenn sa bopp nga ko defal kon donc maa ngi lancé appel waa Sam-Sam nañu gën a jàppale ndaw ñi parce que lii li fi war a mën a judd ci ay njëriñ dafa bari kon yéen tey waa Leral maa ngi leen bu baax fàllu seen ànd bi ànd nii yàlla bu ci dugg yàlla bu seytaane dugg seytaane fu mu xaju rek lay dugg mais nag boo leen gëmee seen bopp yéen mun ngeen amal seen yëfu bopp waaye nag lépp loo gis ci commencement ci benn la tàmbali te am na xam naa ne gëm-gëm bi ma am ci yéen ak yaakaar bi ma ci yéen ak xam-xam bi nekk ci yéen boo ko gëmee xajaloo leen kenn seen diggante da ngeen ndam rek ngeen di am wasalaam jërëjëf gars yi noonu lay demee ñaar xam ne faaw ma sant leen ci gox bi leen dëkk muy kii ci mel ni bàcc mii di ñëw fàllu kii damaa bëgg nga wool ma ko wallaahi fàllu kii jàpp na ci bis lool bàcc kaay wallaahi Fallou euh, bàcc bàcc kaay ma nuyu la. bàcc maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. xoolal caméra ci loo ne. nice. Euh, sa digganteeg Serigne Bamba. sa digganteeg ndaw ñi waaye sa digganteeg bis bi nga xam ne fekkee nga ko nga koy fekkee ay at yu bëree bëri muy bisu safar nga yëkkati say say dërëm def ko ci bis bi tey lan nga ñu mën a wax sa diggante ak. waaw ah, maa ngi leen di nuyu leen siyaare ziar rek waaw ah, lii moom sëñ Tuubaa moom bisam moom comme loo def bu bu déwénee mu yokkuwaat moom comme loo def bu déwénee mu yokk moom boo amee sa dëm na nga def en tant que dëkkandoo nag moom wax dëgg yàlla bu nit xew. gannaaw koñ bi yëpp su ma limee Ismaïla boo limee da ngay juum damay juum walaay te du ma matal eh, mbokk yi di gërëm eh, Sénégal di gërëm àdduna waaye di gërëm ñi nga xam ne ñoom ñoo yëkk seen i dërëm di ko def ci bisu Serigne Bamba bi ñu santale ko yàlla bàcc ñoo ngi lay gërëm kii du ma koo gërëm dama koy ñaanal sunu borom ñoom ñi yëpp sunu borom defal leen jàmm mbokk yi ñun la ak ak Leral TV kii ci yun la bokk te drapeau bi lay yóbbu fu mbokk yi di leen jox dig daje beneen yoon ñoo ngi bismillahi rahmani rahim wa sallallahu taala ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa xadimi wa salama tasliman safaru bamsasin junnatun